jërë ngeen jëf ndam li gaynde yu Sénégal yi am démb ci kaw Gambie ñetti bal ci dara moom la yéene kay yi teg dën wàccee di ko paasante ci seen biir journal bu ci nekk ak ni mu ca xëyee gaynde yi def nañu liggéey bi Sud Quotidien moo ko bind Le Témoin ñu bind ne gaynde yi coob nañu scorpion yu Gambie journal L'Info moom it bindee liise ko nañu Sénégal jàggi na Gambie dóor ko ci suuf joggi jéggi jàll guney Aliou Cissé yi dóor waa Gambie démb gis mooy xale yi dugg nañu ci Coupe d'Afrique yi dugginu rafet dugginu njëkk un bon score un nouveau pion score ba mu di ñetti bal ci dara l'observateur mi ngi ciy waxtaan ak ay footballkat yu fi woon ku ci mel ne Pape Fall Boubacar Sarr Lokot Pape Malick ak Henri Camara kenn ci ñoom di Pape Malick Diakhaté ancien défenseur bu équipe nationale bu Sénégal li mu gis ci défense Sénégal bi woon démb nee mooy défense bu wow Congo bu fort puissant boole cekkit rapide teg ci kii di Sadio Mané ak Ismaïla Sarr li Henri Camara gis Lamine Camara le nañu Camara mine d'or la boobu ku ko gis ci mbégte démb football na lu rëy ci maxam bu njëkk ci Coupe d'Afrique mu dugal ñaari bit yoo xam ne bu ca gën a naay sa morom nga ne bii la moo taxit bi max bi jeexee moom Lamine Camara moom la waa CAF tànn ne ko yaa toj max bi Lamine Camara la def l'homme du max Gambien yi lu leen dal démb rek Walf Quotidien jàpp na ne Lamine Camara moo leen ko teg Lamine moo làpp Gambie bés bi la woon ñàkk te nag des na ndax dañoo nekk ci group boo xam ne max yëpp ay derby lañu Sénégal bi Gambie bi la woon Sénégal ak Cameroun ak Sénégal yi war a ñëw match yooyu it Aliou Cissé nee na ay derby lañu derby bi woon démb ci diggante Sénégal ak Gambie l'observateur mi ngi ñuy nittali prisonniers yi ci kaso bu Mbuur nan lañu ko dundee journal bi nañu ambiance ba tax na ñu bari ci ñoom fàtte woon nañu ne ñoo ngi ci kaso bi fu ca mel ne ca chambre ak chambre bu cité bi ñu tuddee cité Malaw ca prison bu Mbuur ñu dellu si Ndakaaru ànd ak journal Les Échos mi ñu xamal ne candidat yi bëggoon démb am na ci ñoom ñu dem ci kanamu union européenne doon fa jébaane Macky Sall ñu fa doon kalaame ji mooy anam yi ñu doon saytoo parrainage yi maanaam système vérification parrainage le mandat nañu collectif gémmu ñeen fukk ak benn ci ay candidat yu ñu recalé demoon nañu démb yëglu ci ambassadeur union européenne fa la Aminata Touré ak Bougane Gueye Dany ñu ñu àndaloon ne li ñu sàkk mooy ñu arrêté processus électoral bi tribune ñu collectif gi wax nañu démb am na lu jege benn million électeur neuf cent mille électeurs exactement yoo xam ne bind nañu te seeni tur nekkul ci fichier Wade bi mu di ñaari nationalité yi ñu koy waxal Le Quotidien nee nañu mën nga jëm ca kanamu juróom-ñaari saas ya Thierno Alassane Sall mi fi sulliwaatoon coow li fas na yéene yóbbu ab recours tey ji ci talaata ji ca conseil constitutionnel Ibrahima Bakhoum di formateur en journalisme di joxe xalaatam ci coowal double nationalité bu Karim bi ñuy waxtaanee fan yëpp ci source fa la joxe xalaatam Ibrahima Bakhoum nee na homme politique yi rek la dégg ñuy ay doom yu juddoo ca France Ibrahima baaxum ne Karim Wade mi ñuy jaabaa jonge fan yi ak waxi double nationalité bu ñu fàtte ne ñetti doom yi mu am ñaari ci ndakaaru gii fa la ñu juddoo te su ko neexoon France fa la ñuy juddoo Ibrahima Bakhoum ne li may laaj moo di ñuy jaabaa jonge Karim Wade ak di ko xaxaraka tàppasaka tendance ci coowal double nationalité bi ñoom ñooñu ak Karim Wade kan la ci Sénégal gën a ñëw Sénéinfo